Guelongal TV. ñi nga xam ne ñoo féete ca daara ja doon ay ndongo doon jàngalekati alxuraan ñu bari ci ñoom gannaaw yàlla lañu yaakaaroon mooy génn wut lu ñu mën a dundee jamono jii toll nag kër yu ci bari tëj nañ seeni bunt génn yombatul mu am jafe-jafe lool ci yenn daara yi ngalawaay bu leen kenn fàtte. ci jamono jii nii tembe ndongo daara yi sonn nañ lool feebar bii am ci réew mi tax na ñoom ndongo yi sonn nañ ci jamono yi ngir am lu ñu dundee ci loolu nag ñun waa Gelongal TV ñu jug ànd ko ak kuréel bii di ànd jàppale ndongo daara yi te sëriñ Xaadim Mbàkke Basma la jiite ko ci loolee nag ñun waa Gelongal TV ñuy sàkku mboolem ku ñuy teewlu ñu soxla nombre bu toll ci 200 personnes kenn ku nekk ci ñoom joxe 1000 francs ba lu waay man bu ko defee loolu dana toll ci 200 000 francs CFA ngir ñu mën koo jëndee mboolem loo xam ni ndongo daara yi danañ ko yittewoo ci jamono jii nii tembe ngir mën ci dund képp ku ci bëgg a barkeelu nag mën nga ko yónnee ci numéro Orange Money bii di accès ci écran bi.